xam sa xam sa tey xam xam sa tey xam sa est une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp man ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. mbokk yi tey ku ñuy waxtaanee mooy Alpha Molo Baldé kan mooy Alpha Molo fan la dëkkoon fan la jóge jàmbaar ju mag jooju Alpha Molo mooy kan. sunu maam Afamolo Balde bokk ci ñi ñi tiitaroo ci Sénégal waaye nag nañu jàpp ci ndortelu sunu waxtaan gox boobu ñuy wax Fuladu dafa bokk ci lii ñu tuddee royaume ci Sénégal bi di doon moomeel goo xam ne Fuladu ci biir Sénégal bi la bokkoon ka ko sos nag mooy Alpha Molo Balde ci xarnu fukk juróom-ñeent ca digg ba ginnaaw bi moomeel bi tudd gaabu nërmeloo bi moomeel bi tudd gaabu nërmeloo mag ñaa ñuy nettali ne gaabu ka ko jiite woon mooy gor yooyu nga xam ne ñooy ñaancoo yi ñaancoo yi boo leen di seet da ngay nuyu ñi sant maane ñaancoo yi boo leen di seet da ngay nuyu ñi sant saane ñooña ñoo yoroon moomeelu gaabu waaye nag moomeel googu dafa ñekk ba ci yàgg amatul doole ndax ñaara taxoon bi ci njëkk mooy njaayum jàmmaa jeex ndax loola ca la tegoon lépp loo xam ne alalam la beneen bi ci topp mooy waa Fuuta Jaloon mayuñu leen jàmm te booba mu am nguurug lislaam gu fa ne goo xam ne xam a koy joxe ñooñe di dal ci seen kaw ci atum 1725 kon nanu jàpp ne cong yooyu Fuuta Jaloo ndaa leen song ci lu ñu mag ñi nettali boo ko boolee ak ñàkk juboo gi amoon ci biir ñi sant Maane ak ñi sant Saane boo ko boolee ak ñàkk doole gi nu am jàkkaarloog ñi jógee bitim réew loola moo taxoon ah réew moomu daal di nasax bi nga xamee ne nag gaabu ñàkk na doole pël yi di am xel ñoom ñi nga xam ne ay sàmm lañ ak i baykat nga xam ne sonnoon nañ ci coono yi ñu leen doon teg ñoom pël yi mag ñi nee nañ ñu daal di woote am ndaje ndajeem yeewiku ngir dootuñu fay kenn benn lempo. gis ngeen mbokk yi bañ a fay galag ak bëgg moom seen bopp xam ne ñoom pël yi ñoo taxoon gaabu googu di am xaalis ndax galag gin doon joxe muy impôt gin doon joxe daan jël seeni nag ak seeni bëy xar di ko joxe. di jël ci seeni tool di joxe ñu ne nag ñoom dañoo bëgg loola jeex ndax dootuñu toog kenn di leen noot bëgg mu jeex nag moo taxoon mu am ko feeñ ci ñoom kan moo feeñoon ci ñoom kan moo feeñoon ci ñoom mag ñaa ngi nettali ne ki jiite woon loolu ñu ngi ko tuddee alfaa Molo Alpha Molo moomu nag bu nu fàttee ñun ñëpp ne la taxoon fitam gën a jóg la taxoon njàmbaaram gën a jóg la taxoon xadaram gën a jóg mooy la mu nàmpoon te doon ko waaye nag keroog ba mu tasik alaaji Omar Tall tasik alaaji Omar jëm ci yoonu Fuuta Jaloo mu ànd ak moom giseek moom mu am lu ko sol am lu mu ko duy ndax Alpha Molo Balde mooma xam ngeen nu mag ngi neen moom la tuddoon mag ngi nee nañ Molo Ege la tuddoon ci turam dëgg waaye la tax ñu ko doon wax Alpha te alfaa di njiit li mooy keroog ba mu demee jàngi alxuraan ba mokkal ca Fuuta Jaloo keroog ba nga xamee ne def nañ ko kàngam ne ko yow yaay alpha keroog nag na toog fëgg dënnam ne man mi tey sas naa sama bopp ni ma ko lislaam jàngalee ne sama askan seen métit danaa ko dindi danaa ko gàttal danaa ko dakkal mbokk yi noona nag la fasee ne li jàngoon moom ci xarala yoo xam ne xaralay xam-xamu biir la li mu jàngoon ci nu ñuy rëbbee ak limu xamoon ci nu ñuy demee xare ji te baayam malal ak ki nga xam ne mooy cernoom jàngaloon ko di gelaajo tàggatoon ko ba mokkal ko Alpha Molo ne loola moom lay yëkkati dem nag jiite mbooloom ànd ak ñoom ñu fippu ndax dootuñu nangu benn mandeng di dal ci seen kaw jóge ca gaabu mbokk yi mag ñi nee nañ alpha moo la fexe ban doon wenn say xàmmeetunu kuy géer ak kuy géwal xàmmeetunu kuy tëgg ak kuy bambado pël yëpp ànd déglu leen ma ma nettali leen mbokk yi liñ ma nettali nee nañ ci biir àll boobu tudd ndor na fa nga xam ne booba képp kuy rëbb fa nga daan daje képp koo xam ne pël firdu nga bokk nga ci foofu ñu tuddee firdu da nga fa daan daje foofa nag ca atum 1860 ca lañ daje ñoom pël yi waxtaan ci seen biir ne maasaa yi di buuru gaabu yi sonal nañ leen te dañoo bëgg moom seen bopp mbokk yi ñu toog fa waxtaan nas la ñuy nas wax nañ naree xare ji ne xare boobu nag alfaay yi nga xam ne dañoo dëkk labe dañuy dem wooyi leen ndax ñoom ñooy njiit yi ci politique ñooy njiit yi ci diine ca Fuuta Jaloo ñooñu ñëw ànd ak ñoom ñu daal di jóg nag dal ci jànkewaal yi looloo ko na saxal mag ñi nee nañ Kansala nga xam ne mooy peyu gaabu dafa mu jub bi dóor yi méttee xeex yi métti xeex yi métti lool sox yi métti jam yi métti dee yi métti pël yëpp ànd doon wenn say ba ñu demee bu jub atum 1879 ca la pey ma rës ba mu rësee mbokk yi moomeel gii di Fulaadu jóge ca guerre boobu daal di nag fa nga xam ne fa la gaabu nasaxe mu daal di fay samp Abraham du nag bu ngeen ko déggee mooy réewu pël yi Alpha Molo ca noona jël ndor naa def ko péeyam waaye gis ngeen Alpha ba mu toogee rek ba xeex bi jeex mu am ñu jóg na waru leen a jiite ndax moom du deretu buur ndax moom du gor di ñi dem ba naan sax moom deret ji du deretu jaam la ndax deret ju suufe la waaye Alpha ku ñëw mu daan ku ñëw mu daan ku ñëw mu daan ba mujj mu daan ñëpp moom Alpha Molo di moom réew ma kon mbokk yi kii mooy Alpha Molo Alpha Molo moom moo jiite Fuladu di ko jiite di ko jiite ba keroog bi mu génn àdduna 1881 fële ca dàndu ca Guinée Bissau tey jii Alpha ginnaaw bi mu génnee àdduna ku ne bëgg jël ngangunaay gi mu toogoon ne danga koy jël waaye bi ñu bëggee jël trône bi ku ko bëgg a jël ñëw doomam Moussa Molo dal ci sa kaw musaa Molo dal ci sa kaw bu Moussa Molo dalee ci sa kaw nga daal di dellu ginnaaw ba nga xam ne kenn ñemeetu la ñëw moom mu daal di toog nag daal di jël moomeelu baayam jiite réew ma jël nag pays bi yóbbu ko am Amdalaay musaa Molo mi nga xam ne dafa lëkkaloo woon ak tubaab yi. ñu yónnee woon koy soldaar ba mu daan ay noonam mu siife ak ñoom kayit woo xam ne protectorat lañ ko tuddee woon ca novembre 1883 mu daal di toog ca nguur ga ba am Amdalaay bi nga xamee ne koomam wàcc na bi nga xamee ne ñàkk na politique am ba Moussa Molo daanoo ndax bi mu yàqoonte ak tubaab yi ca la Moussa Molo léppam yàqu mu génn àdduna nag. ginnaaw gàddaay gu yàgg gu bëri ay coow ca 1931 ca Keserekunda Keserekunda tey jii boo koy wër da dem ba biir Gàmbi kon nag mbokk yi ñu jàpp ne tubaab yi ñoom ci seen bopp ca lañ dem Kolda daa di fay toog nag samp fa ba ku dem Kolda tey da fa gis màndarga yooyu kon mbokk yi gis ngeen Moussa Molo Moussa Molo baayam la donn kon mbokk yi Fulaadu réyoon na rëy goo xam ne am na wàllam goo xam ne dafa bokkoon Sénégal am wàllam goo xam ne dafa tibboon biir Gàmbi am wàllam goo xam ne dafa tibboon biir Guinée Bissau kon tey boo koy seet ba seet ko boo bëggee dem Fulaadu demal koldaa mbokk yi lii da la mag ñi nettali nettali nañ ñu ñu nettali fekkewunu ki nu nettali nag nee nañu Alpha Molo nee nañu Alpha Molo mooy bàyyi Moussa Molo nee nañu Alpha Molo moo tase nag ak Omar nee na Alpha Molo moo daanoon gaabu samp fulaadu kon mbokk yi nettelu di jeex waaye yoon wu ne am na fu muy yem sunu yoonu tey wi fii la yem. xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may. ànd ci ak archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique la Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut